gaynde la fii si kër Serigne Saliou bu leen daw nag bu defee dara dégg ngeen gaynde ngoog suñu tàggat yi bokk na dara. li ma la waxoon ci pël lii daal teraanga ji daal la Abdou Lahad Seck Sadaga andiloon Cheikh Mamadou Mountakha teraanga yaa ngi nii teraanga yii la andiloon Cheikh Mamadou Mountakha góor yàlla teraanga yaa ngi nii dem ba teraanga yaa ngi nii gaynde daal la mi ngi nii gaynde daal la mi ngi nii da da ko jëloon Cheikh Mountakha góor yàlla gaynde gaa ngi nii fii si kër Serigne Saliou gaynde daal la mi Sandaga def na lu rëy yëbal na Cheikh Mamadou Mountakha Gaynde Laat Seck Sandaga ngi noonu si kanam ak Cheikh Mamadou Mountakha waaye toujours de yéen a ngi leen di wax ak moom si Gaynde yéen a ngi koy làq de laata ngi noonu jëbale lem ngeeg Gaynde yi ñu ngi noonu sëñ Mountakha di wax ak moom sëñ Mountakha bëgg na laat joxe